huit heures tegal na quarante minutes ci rajo Futur Média mbokk yeeg xaritu auditeurs yi ñoo ngi leen di nuyu ñëw ànd ak professeur man mbay jëm ci suñu cours d'histoire may nuyu tey ziar professeur salaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam El Hadj Boubacar maa ngi lay nuyu bu maa ngi lay fay. mbaa jam maa ngi sant bu baax di am mbégte bu baax a baax a baax di ànd ak yow semaine bi ñu génn ñu ngi doon waxtaanee Blaise Diagne. waaw Euh, Boubacar moom la ñuy euh, continuer tey ji sax. Mhm. Euh, xam nga keroog dugg nañ ci Blaise Diagne lu dugg nañ ci Blaise Diagne ba dem ci fi nga xam ni daanaka nekkoon na koo xam ni daawul may dara tubaab yi ba nga xam ni sax fu ne lañ ko daan affecté bëgg fuñ ko dem rek ñu ne na fa jóge nañ ko yóbbuwaat feneen ci ku ñuul koo xam ni dafa dëgër këcc ci kanamu tubaab yi amul benn complexe. waaw loolu yaakaar naa ni Boubacar aspect la boo xam ni mun nañ ko retenir ci Blaise Diagne. Mhm. muy nit koo xam ni euh, bi nga xam ne bañ jot na dafa bañ. Mhm. bi nga xam ne ni aussi euh, contexte bu metti muy ay tubaab yoo xam ne ñoo fi nekkoon non seulement amul complexe ñoom waaye fu ci ne daje na ci ak ñoom ca fu mu xeex ak ñoom daanaka da koo gañe. Mhm. loolu yaakaar naa ni muy du jafe. Mhm. Boubacar nga may ñu rek di ñu sant yàlla bu baax julli ci yonentam bi rasulullah sallallahu alayhi wa euh, nuyu suñu ñaari waajur remercier le ministre Mbacké Ndiaye. Boubacar dina la woo dina ma woo toujours parce que dafay rafetlu li nga xam ni wax na ni même directeur d'école yi ak ñu bare bari seen poste dañ koy jàpp di déglu lii. Mhm. Boubacar ñu ngi nuyu aussi géwél yi juddu Blaise Diagne. Mhm. waaw ñi nga xam ni ñoo xam cosaanam dëgg. Mhm. suñu mbokk muy ñuy wax Talla Samb ca Ngumba Ngéwul. woo nañu defal ñu généalogie Blaise Diagne. mais xam nga ni temps bi Boubacar gàtt na gàtt goo xam ne bu ñu duggoon ci généalogie. daanaka duñu ci génn dafay dafay lekk dafay lekk waxtaan wi yëpp. dëgg la xanaa rek xam le aussi ni ginnaaw euh, tradition orale boobu. Hmm. dugg nañ ci aussi li ñuy wax les sources archivistiques muy archives yi. Hmm. waaye euh, bibliothèque yi nga xam ne aussi dugg nañ ci xool nañ lañ def ci Blaise Diagne. Hmm. Boubacar am na benn tubaab bu ñuy wax Charles Cross. moom moo bind la parole est à Blaise Diagne. mu ngi publier livre bi 1972 euh, Paris édition maison du livre. am na suñ góor ku baax goo xam ni bi mu fi bàyyi ko yàggul ñuy ñaan yàlla suuf woyof ci kawam muy le professeur Amady Ali Dieng. Mm-hmm. dafa bind benn livre tuddee ko Blaise Diagne député noir de l' Afrique. Mm-hmm. Paris Dakar Thiaka 1990. Mm-hmm. am na ku ñu wax Boubacar Wesley Johnson. moom li mu bind Sénégal bari na trop moom moo bind naissance du Sénégal contemporain. aux origines de la vie politique Blaise Diagne occupé ci lu bëree bari. donc Boubacar ni ko waxee rek yaakaar naa ni nit la koo xam ni buñ dee xool li mu def. Hmm. Euh, ci Sénégal yi nga xam ni mën nañ leen jël comme exemple servir ko aux jeunes générations te ciy bokk. waaye xam nga ni euh, Boubacar Blaise Diagne euh, am nañ njaboot goo xam ni aussi ñu ñu am mandarga la ñu am solo lañu loo xam ne def nañ ko ci seen àddina. Hmm. ginnaaw bi mu takkee Marie Odette Villain moomu. Hmm. nga xam ni mi ngi bàyyi ko dëkk bu ñuy wax Orléans. am na ci ñeenti doom. Euh, ku ñu wax Roland fonctionnaire des chemins de fer. Mhm. ku ñu wax Adolphe mi nga xam ne mi ngi juddu 1907. génnaat dina ci cinq mhm. nekkoon benn médecin militaire commandeur de la légion d'honneur mhm. ak nag Raoul euh, mi nga xam ne mi ngi juddoo dëkk bi ñuy wax Guyane 1910. nekkoon footballeur professionnel ak premier footballeur africain. bi ñu sélectionné en équipe de France. loolu jar na jàpp trop Boubacar. dëgg la premier sélectionné en équipe de France entre 1931 et 1940. Hmm. Roland wax na ni moom nekk na entraîneur équipe bu football bu Sénégal. Hmm. loolu yaakaar naa ni Boubacar des aspects la yoo xam ne mun nañ ko jàpp ci Blaise Diagne. Hmm. te mu am solo trop. dëgg la. waaye eh, xam nga ni eh, Boubacar Blaise Diagne. dañ ko tuddoon défenseur des maanaam des des malheureux mooy ñi nga xam ne daanaka seen loxo jotuloon seen gannaaw du ñu am avocat wala lu mel noonu bokk na ci ñi nga xam ni daan leen jàppale. yaakaar naa ni aspect la boo xam ne mën nañu ko jàpp ci moom aussi. Hmm. mais xam nga ni wax nañ ci Cheikh Ahmadou Bamba exilam boobu. Hmm. am na ay résistants yoo xam dafa daje ak ñoom. Hmm. daje woon naag euh, ki ñuy wax Sambalaw ba Penda. daje woon naag ki ñuy wax Samori Touré mi nga xam ne mi ngi génnee dëkk bu ñuy wax Ndiolé ci Gabon. waaye Serigne Touba daje naag Blaise Diagne aussi Boubacar. ndeysaan mu nekk jeune inspecteur des douanes contrôleur sax la woon. waaye euh, waajuram wii ma la wax keroog di ñaaña Préra. moo ko wax ni ko dégg nañ ñu ni am na sëriñ bu mag boo xam ne bàyyi ko na Sénégal. Mhm. mi ngi foofu ci Gabon. Mhm. boo demee am na ko na nga na nga ko nuy ji. Mhm. lépp loo xam ni ci lu baax mën nga ko doxal ak moom na ko def. wax nañ ni euh, daana indil sëriñ bi lu mel ni ay kayit ak lu mel ni encre. donc loolu bokk na ci aspect yoo xam ne daal la vie de Blaise Diagne aussi. je crois que aspect la bu am importance bu Boubacar. Euh, maanaam daal sëriñ bi dafa daan bind lu bari. Euh, daan soxla maanaam encre ak yooyu Blaise Diagne da ko daan indil. ak kayit loolu bokkoon na ci li nga xam ni doon na ko doon na ko doon na ko mm-hmm. ndax Blaise Diagne dafa amle woon ak ak na kilifa kilifa diine yi ak kilifa aada yi. Mm-hmm. ku ci mel ni Alaaji Asan Ndooy mi tey ji euh, amoon na moom relation yu yoo xam ni. Mm-hmm. bokk na ci li nga xam ne sax moo tax daanaka les élections de 1914 jàppale na ko ci trop trop trop. en tout cas nit la koo xam ne daal euh, Boubacar yaakaar naa ni ci wàllu bañ. parce que xam nga euh, Boubacar bañ ca bañukaay ba li ñuy wax naa bañ ca bañukaay ba. Mm-hmm. parce que période boobu période bu metti la. dëgg la wax naa la keroog ni la am na jamono joo xam ni ku ñu ni mas ni euh, tubaab convoqué na la. sa waa kër du ñu du du añ ba du ñu reer. dëgg la nga ñemee jàkkaarloo ñoom sur tous les fronts. Mm-hmm. loolu bokk na ci poste yi nga xam ni doon nañ ko fa yóbbu. Mm-hmm. ay ay Madagascar ay Guyane fenn fa nañu yóbbu ko fa loolu bañ moo taxoon. ba wax naa la fii ni la mise à pied nañ ko pendant au moins un an. Mm-hmm. yoo xam ni bañante moo taxoon mu doon ko def. dëgg la loolu yaakaar naa ni bokk na ci li nga xam ne daal en tout cas. Mm-hmm. Euh, Blaise Diagne dafay dafay nit koo xam ni nit ku nit ku nit ku nit ku dëgëroon fit la. Mm-hmm. nit ku jambaare woon la. nit la koo xam ne amuloon benn complexe par rapport à l'Occident. te loolu Boubacar bokk na ci li ñu gënoon a sonal. bokk na ci li ñu sonal ba tey. dëgg la. Euh, xanaa rek Boubacar aussi. Uh-huh. xam na ni euh, Blaise Diagne aussi xam na ni euh, wax naa la keroog ni la def ni euh, moom jabaram nit ku weex la. Uh-huh. doomam métis la moom muy nit ku ñuul. Uh-huh. mu doon genre donc métissage boo xam ni cultivé woon na ko ba am ci loo xam ni yaakaar naa lu rëy ci élection yooyu. Uh-huh. moo taxoon ma waxoon ni la ci biñ koy tàmbali. ni la dafa wax ni les noirs vont voter pour moi. les blancs vont voter pour ma femme.

parce que le mouvement la négritude bi nga xam ne mi ngi ñëw. Hmm. dans les années 1930. Hmm. bañ la woon Boubacar. bañ la woon. bañ la woon parce que dafa nekkoon contexte boo xam ne aussi di woon contexte bu yomb. Hmm. moo tax ñuy wax toujours nit boo koy jugé. ci période bii nga nekk mais jugé ko ci jamono jamu nekkoon. parce que yomb na nga critiqué tey. mais toll na jamono joo xam ne tubaab képp ku ko mës a séen doo yenn. donc mën a jàkkaarloog Euh, au premier tour d'une élection de 1914. Mhm. mu doon loo xam ni même gouverneur général daf leen a convoqué. Mhm. les bordelais ak ñi fi nekkoon ñëpp. Mhm. pour expliquer véritablement li nga xam ne moo am parce que tubaab yi ñu ngi ko tuddee woon un séisme politique. waaw xam nga loolu ci volcan lañ ko xam. dëgg la loolu mooy daanaka euh, mooy suuf si yëngu. non seulement daf leen ko def premier tour mais deuxième tour mu ñëw encore gën a corse victoire. mais mais p professeur. Euh, nekk nit ku ñuul. nekk député eh, dugg ci biir assemblée ba eh, ngir taxawal fa maanaam eh, colonie yi te xam ni dëgg-dëgg ñii nga xam ni ñoom ñoo di maanaam colon yi li ñu fi nekkee mooy exploité exploité maanaam dëkk bi lañ fi nekkee wut fi gerte wut fi leneen luñ fi wut wut fi or wut fi ay épices wut fi leneen luñ fi mën a wut yóbbu ci contexte boobu nekk fa député daanaka nekkoon loo xam ne moom moo doon complication bi gën a mag de mais lu ko gën a metti amul Boubacar. Mhm. loolu moo taxoon situation metti mhm. parce que moom jàng na xam na ñoom li ñuy def. Mhm. boo liiree téere yi nga xam daanaka moo génnoon période bi yépp ci 1930 ba ci nga xam ni littérature africaine daanaka euh, boo ko dee xool day mel ni histoire. ndax li ñuy wax euh, la détérioration des termes de l'échange. suñu matière première yépp dañ koy jënd. bu nu ko jëndee ci ñun jëndee ko prix yoo xam ni du wakkat da doon dara. bu ñu ko yóbboo transformé ko en produit manufacturé. Mm-hmm. bu ñu ko wëlbati ko nga xam ne nun noo moom daanaka produit jaayaat ñu ko. Mm-hmm. ci loo xam ni ba nga ni dafa dafa bu waar Boubacar. Mm-hmm. loolu nag nga nekk ci biir assemblée xam ni ñii ay tubaab lañu yaa ngi ñoom yéen bokk assemblée bi. waaye ñii ñu koy def yaa ngi ñoom yéen bokk. loolu yaakaar naa moo mooy li ñuy wax na être entre le marteau et l'enclume. waaye bañ na ko ba tubaab yi xamoon nañu fi mu féete. fi mu féete woon mooy fi ay mbokkam féete. nga xam ni bañ na ko ba li mu mënoon def lépp daal yaakaar naa ne def na ko. dëgg la. quoi que loolu nag bokk na ci aspect yoo xam ne am na importance. moom la ñu tuddee fii nii marché ti leen nekk avenue bi ñu tuddee avenue Blaise Diagne. waaw tuddee nañ ko sax euh, xam nga ni euh, lycée Blaise Diagne moom lañ ko tuddee. bu mm-hmm. bu mag boobu nga xam ni li mu formé ci ay génération kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. avenue bii nga xam ni moo nekk ci marché leen di avenue Blaise Diagne moom lañ ko tuddee. Mm-hmm. waaye xam nga ni aéroport bi aussi moom la ko maître Abdoulaye Wade tuddee Boubacar. dëgg la xool jàmbaar gi nekk ci moom. Mhm. xool jom ji nekk ci moom xool li mu defal Sénégal mu ni kii naa ko rendre hommage. Mhm. mu ne nañ ko tudde Blaise Diagne loolu yaakaar naa aussi am na solo trop Boubacar. nga xam ne duñu ko fàtte ba faw. nga xam ne kenn dootu ko fàtteeti. Mhm. mais Boubacar maa ngi lay wax aussi nit koo xam ni ni ñuy dégloo aussi dañuy téléphoné toujours muy alaaji Bekkaay Mbay di sa xarit di sama xarit. mi ci laafa gi. xam nga Boubacar euh, dafa am loo xam ni am na solo ci war nañ ci taxaw. dëgg la xaw ma kañ lañ koy ñëw mais askan woowu ñu ne askanu ngéwal. dinañ ci ñëw di Boubacar. waaw ngéwél mënuñu see bañ a ñëw. mais bu xam nga ni ab géwél akum ñaankat bokkul. ak géwél akum ñaankat bokkul. bokkuñu de. déedéet kay. aw askan la. géwél ak askan la fii de dañ koy duppee ñaan rek. ci laa def sama doctorat. yow sa doctorat yaa ngi ko def ci. ci géwél yi. ci géwél yi. topp naa leen ba Mali. Hmm. topp naa leen ba fa mu cosaanoo. Hmm. est-ce que xam nga ni Boubacar géwél yëpp daawuñu wax. géwél yëpp daawuñu wax. déedéet. Hmm. looloo tax tey dëkk bi jaxasoon na Boubacar. dëgg la nañu xoolaat kàddu yi. Uh-huh. nañu xoolaat ni ñuy waxee. Mm-hmm. nañuy xoolaat ni kàddu boo ko xasee ba yëkkati dafa am solo. Mm-hmm. Boubacar dafa am benn benn écrivain bu ñuy wax Dominique Zahan. Dominique Zahan benn ivoirien la. Mm-hmm. dafa bind benn téere tudde ko la dialectique du verbe chez les bambara. la dialectique du verbe chez les bambara. nee na yàlla mi nga xam ne moom moo bind kàddu. moo ko jëkk ragal ndax làmmiñ mi nga xam ne moo koy ko tëj ci néeg boo xam ne 32 ans ñoo ko tëj. Hmm. ba pare jël ñaari lèvre teg ko ci. Hmm. pour muur ko génne rek nañ koy pour muur ko. pour muur ko. yàlla mi nga xam ni moom moo bind le verbe moom mi bind kàddu. dafa ragal wax moom ci boppam ba jël maanaam euh, trente deux dents daal di muur làmmiñ bi nga xam ni moom mooy wax. ba noppi jëlaat ñaari lèvre teg ko ci. loolu yaakaar naa ni Boubacar. Hmm. toujours nañuy def attention ci li ñuy wax ndax wax am na ñoo xam ne bu ñu wax dañ leen di déglu. déggoo Alpha Blondy mu ne. Mhm. bawule te toi mhm. keneen te toi keneen te bàyyi leen affaire u maanaam waaso yi ngeen di yëkkati ci réew mi mhm. mu ne kuruma kuruma woo te toi te toi bawule kuruma kuruma woo te ku ne dëkk euh, xeet bu ne ca Côte d'Ivoire mu leen noppi leen bàyyi leen yëfu waaso yi ngeen di yëkkati ci biir réew mi gis nga gis nga Boubacar te ba mu koy wax maanaam seen coow 2004 ñëwagul woon mais xam nga ñoom c'est des c'est des précurseurs ñooñu ay lañu dañuy dañ leen di déglu. Mm-hmm. Boubacar man sama waajur xam nga lu ñu koy tuddee. Mm-hmm. Pousso lañ koy tuddee ci département Kébémer ak région de Louga. Pousso. waaw xam nga Pousso lu muy def Boubacar. ñaw day ñaw. Mm-hmm. bokkul ak lañset bi nga xam day xotti. toog naa benn kilifa ni ko nun bi ñu juddoo ci réew mi yàgg na. dëgg la waaye muy politique di religion. fépp fu ñu dugg ci département bi mbaa région bi bu ñu àndul ak bi dañuy gëlëm. incha allah kon Boubacar lu ñuy waxaat nañu koy xool. am na solo. ndax dañuy représenté ab dañuy représenté état. làmmiñ dafa am solo ba nga xam lépp loo ci wax. Hmm. tubaab yi dañuy wax na xam ne bala ngaa wax na nga yëngal sa làmb juróom-ñaari yoon. Hmm. nga doog a génn li nga wax Boubacar. dëgg la mais professeur kon